mais damay poursuivre sama sama réflexion alors est-ce que Doudou dafa subir euh, la loi de de de rajeunissement euh, du du parti wala est-ce que Doudou Wade dafa am lu mu def lu tax aujourd'hui euh, associé wuñu ko ci yenn mbir yi dafa. dama la benn affaire pour le rajeunissement du parti le rajeunissement ne veut pas dire sacrifier et tuer les, tuer les pas tuer les vieux. nekk ci wet bi defal ndànk tamit may mun a loolu wax nañ ko léegi may mun a bul fàttee man li ma wax dafa dafa am yoon lu ma jóge ak fi ma jëm yëpp benn lay doon mais waxuñu woon nañ rey mag ñi ñu fi jiitu Ousmane Sonko wax na ko non j'étais pas sûr ça bu fekkee ne dañu war a génne ay mag am na ay ñëw suma kër seet ma ne ma dañu bëgg nga bàyyi parce que man ak ñoom ñoo bokkul position mag nga nga noppalu ko ma ne waaw dinaa bàyyi bu gannaaw ëllëgee bu ma jëlee boo leen ma indilee. acte de naissance Ablaye indi sa te da ngeen ne mag laa ma bàyyi mais man mënuma bàyyi te bàyyiwul bu Ablaye bàyyiwoon ma bàyyi parce que man bu ma demoon du sotti parce que au moins gisuma ko mais am na lu ma koy jariñ am na lu ma koy jariñ ci nit yi yow yaa ko wax léegi yow yaa ne nit ñi xam nañ ma te jox nañ ma respectabilité te loolu laa gën a sàmm nag parce que parti bi am na ñoo xam ne seen ci organisation bi ñu nekkoon nii ak élection yi am na ñu bari ñu leen seet si pour ñu seet si leen dañu am sama aval parce que man la xam ñoo xam lañu li may wax man maay wax diw ma yoro euh, tafsir nangam tel parti ñëw seet ma diw ñëw na daf leen bugg gis kañ la ñëw seet si leen j'ai reçu des candidats yu ñu recevoir ñoom candidat potentiel à la présidence de la République loolu yàlla defal ma ko politique moo tax ak PDS Ablaye Wade la donc man bañu ma rajeunissement suma section communal xam na li may wax dama dama ne lenn laa réussirul trouver dans mon département à Dakar et principalement en biscuiterie teguma sama fooka mais kenn koo xam ne kii dinañu mën a wax ne kii de élève Doudou Wade la ci assemblée bi mais awma ko je travaille beaucoup plus avec les députés des autres partis ma wax la ko nag te ñoo xam nañ ko mais la moo tax Euh, nga décider aujourd'hui poser le débat euh, sur ab Wade. non je ne l'ai pas posé sur, sur Ablaye Wade non encore Maïmouna. sur sur ce qui se fait au PDS. à son très bien parce que ce n'est pas le même Ablaye Wade man même nu ma nu ma ko barke démb dama toog ci émission bi di wax démence rek di seet majorité discordante ma seet moo bi gisuma ko tey ñëw na at la ay at olof yi wax ne. bu fekkee ne sa métier da nga am fukki at di jaay ay màgget nga am 10 ans di jaay ay màgget sa papa am 30 ans yow yow boo demee ba sa papa am cent ans di nga war a xam prix man xam naa prix Ablaye Wade te xam naa ne ab Ablaye Wade gisuma ko xaw ma lu nekk ci moom mais xam naa envem envem ci li mu war a bàyyi ak naka la ñu war a defee patrimoine am et le patrimoine du PDS. ci ni ma gisee nii ñu koy doxee nii à partir de ces investisseurs laa ko wax ñu dàq la may mu ne est-ce que xam nga PDS arrivé na lenn loo xam bu la waxee doo ko gëm. Hmm. est-ce que yónnee wu ma la kayit hmm. section section xam nga section. section de Fass wala bu Grand Dakar ay nit osé nañu jël papier en tête parti bi ne dàq nañu diw lu lu Ablaye Wade mënu billaahi te ñu ngi koy xam ñoom ñu gis ko ñëpp noppi. wax naa ko barki dem dafa am ci parti bi ñoo xam ne xam naa leen def nañu quarante cinquant ans dans le parti boo leen yeewee léegi léegi léegi ñu wax la parti bi muy doxee may mun ña ngi wax na barki démb dégg naa Daba Diouf koo ci fekkoon muy nelaw nga ne lan la xam mu wax la naka la ñuy defee nga bàyyi secrétaire secrétaire wala président wu section wala fédération jël kayit signé au non du PDS engagé ne dàq nga militant Ablaye Wade àgg nañu foofu